Kouaté. Diawé Diawé Kouaté. ci APR nga bokk fii waaw ci APR laa bokk euh, zone ba Madina Fall. léegi pour la zone nord. Euh, de réflexion bi dañ ko woote euh, ci xiif ko ak mar ko parce que lu ñu waajaloon lu bu yàgg suñu leader organisé ko muy El Hadj Ousseynou Sène ñu woote ko. comme ni ko turam di woo woowee journée de réflexion ñu war a xalaat xayma saytu euh, càmbar euh, yoon wi nga xam ne mën nañ cee jaar ba jël zone nord te ko ci loxo ki nga xam ne mooy El Hadj Ousseynou Sène suñu leader loolu moo waral journée de réflexion bi euh, ñu woote ko nag taxawal ko fii ci jaxaaw liggéey bi tàmbali ngeen def ay jéego ndax élection yi mujj wane na ko tey jii taxawaay bi si yan fan waaw liggéey bi wane nañ ko bu yàgg. tey euh, defaraat la euh, takkaat ndigg la euh, li ñu amoon am lu ko ëpp li ko ëpp lenn la rek mooy jël zone nord maire bi te ko ki nga ci loxo ki nga xam ne mooy El Hadj Ousseynou Sène fexe itam ba nga xam ne kii mooy di El seen Ousseynou Sène ak jëf yu baax yi nga xam ne yàgg na koo def ci zone nord di dimbali nit ñi di def politique de développement ñu fexe ba ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall recevoir ko. takkal ko ay raay yoo xam ne mérité na ko. liggéey bi également yi jeex na yu bees yi ngi tàmbali Dakar tàmbali mais Thiès le la waroon tàmbali commencé gul ndax yéen a ngi waaw bokk na ci li tax ñu daje euh, journée de réflexion bi euh, ci responsable politique yi nga xam ne ñoo nekk zone nord kenn ku ci nekk jox nañ la ay moyen ak terrain boo xam ne ak euh, arme yoo xam ne war nga cee taxaw ba fexe ba bu ñu nee Thiès départ na pour joxe carte d'identité say militant ku ci nekk. am carte d'identité ci anam yu yomb yomb euh, xalaat nañ ci préparé nañ ko daanaka zone noonu ñun pare nañu euh, ba nga xam ne bu ñu commencé liggéey boobu rek incha allahu rabbi suñu militants yi ni leen teg ci yoon boo xam ne seen carte d'identité nañ ko am te duñu sonn. waaw beneen défi bi Thiès Nord yéen bu ngeen a amoon ndam ba pare est ak ouest amuñu ndam du leen neex euh, mais responsable dafa mel bu fekkee am na ñu ànd. seen militant yi am na ñoo xam ne ànduñu fan yi ñu ngi ko nemmeeku ban mooy kaddu El Hadj Ousseynou seen ci wàllu woowu. waaw kaddu El Hadj Ousseynou seen mooy euh, euh, yar ak teggin euh, ci wàllu militant yi réeroo amul ci kaw ndax ñoo bokk même objectif jàppale président daal fi Macky Sall ñëpp nekk waa APR kon kenn ku ci ne comme ni mu ko waxee nga nekk leader politique na nga fexe ba tàggat sa njaboot xamal leen lan moo tax ñu war a taxaw ci campagne bi ñu booloo nekk benn. liggéey dans la solidarité joxante loxo tàppe xol yi xam ne ñu am même objectif mooy jël APR mu sanc fii nga xam ne mooy cees Thiès nga xam ni euh, te am nañ ko ci yaakaar ci teewaayu Ousseynou Sène mi ak leader politique yi nga xam ne ñoo fi ne incha allah bëgg nañu ci at yi di ñëw président de la république Sall gis ne APR toog na biir Thiès. 2017 moom incha allah tàmbali nañu liggéey bu yàgg euh, dañu ne boo xamee foo sa noonu bi nga xamee foo jëm doo yegg euh, mais xam ne ñun fi ñu jëm. taxaw nañ ko liggéey nañ ko incha allah di 2017 bi nañ jël APR mu fees Thiès ba keneen dootu xajati biir Thiès te jël zone noo teg ko ci loxo président El Hadj Ousseynou Sène. merci mhm. man la soxna Khady Diagne. responsable fii au niveau de la zone nord ici à Diakhao derrière Ousseynou Sène. waaw ku wax mobilisation sa xel day dem si jigéen ñi. Mhm. Euh, tey euh, wane waan ngeen misaal bi journée de réflexion bi. Mhm. waaw seen taxawaay euh, ngir eggale ginnaaw dogal yàlla mébadu seen leader. Mhm. yóbbu ko 2017 assemblée nationale mais fexeet ba président Macky Sall am ndam bu rëy fii si Thiès. loolu mooy taxawaay jigéen ñi. élection kenn mënu ko wax ci génn ci famille élection kenn mënu ko wax ca génne ci jeunes yi ca ñun nag ñun femme zone nord dañoo am gaynde gaynde gu nekk ci lëndëm gi di rugir di rugir lu yàgg nekk ci lëndëm gi di liggéey gaynde googu du kenn ku dul El Hadj Ousseynou kooku nag moo topp ci gannaaw Thierno Alassane Sall parce que nag Thiès mënuñu fee wax politique sans pour autant ñu tudd Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall mënuñu ko continuer aussi au niveau de Thiès ñun nag ñun waa zone nord. ci gannaaw Ousseynou seen ñi ngi liggéey fexe nu ñuy réélire Macky Sall ndaxte nag 2019 ci 2017 lañ koy josé ñun 2017 la ñuy pare ba pare ñun suñu gagné 2017 ci la ñuy xam ni 2019 daañu ko gagné ñun daal lu ñu mën a am 2019 ci 2017 lañ koy xamee ñun 2017 la ñuy pare pour mën a confronter 2019 ñun femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw Thierno gannaaw Ousseynou Sène Ousseynou seen mii nag du ma denc di ko wax dootul Ousseynou seenu quartier du Ousseynou Seenu zone nord Ousseynou Seenu cees la tout cees dañoo war a xam Ousseynou Seen dafa jot dafa jot ñu wane kan mooy Ousseynou Seen ici au niveau de Thiès parce que nag Ousseynou day jàppale femmes yi Ousseynou day jàppale jeunes yi Ousseynou day jàppale daayira yi Ousseynou day jàppale imam yi Ousseynou day jàppale taalibe yi Ousseynou mi ngi ci cimetière yi Ousseynou mi ngi ci néew ji doole yi Ousseynou mi ngi ci adduction d'eau yi Ousseynou mi ngi ci école yu daanu yi Ousseynou mi ngi ci kan caniveau yu yàqu yi Ousseynou mi ngi ci sabilila Ousseynou mi ngi ci mutuelle de santé yi Ousseynou amul dara lu ñuy def fii au niveau de la zone nord ci te loxoom nekku ci te mu leer ma leer ma ni Ousseynou il il travaille avec ses propres moyen deful xaalisu état deful xaalis politicien deful xaalisu kenn amul bailleur amul ku koy dimbali kenn sponsorisé wu ko moom mooy def la main dans sa poche di dimbali néew ji doole yi di ko def fii di ko def dakaar di ko def euh, zone est di ko def zone ouest rawatina zone nord kon ku mel noonu dafa jot ñu jël ko porté ko au nit ñi xam mooy kan Macky Sall la xam mooy kan ci loolu la ñu taxaw. loolu wax ngeen ko déjà bon am na jéego bu ñu teg. Mhm. mi ngi ànd ak ministre. mais seen leader boobu fan yi ñu ngi koy ah, loolu mënul ñàkk ci politique. loolu moo politique ñoo ànd. parce que nag politique foog faaw mu am ay divergence politique faw mu am ay ay ay concurrent loolu ñun du problème ci ñun mën nañ ko gérer à notre niveau ñun daal li ñu nekk nag ku nekk nekk ci li nga nekk ba xam lan la. ñun li ñu nekk mooy jàppale Ousseynou seen mi nga xam nag dafa gayndalagu ne ci lëndam gi di liggéey te li li bi liggéey nag il est temps ba ñu wane ko leeral ko ba ñëpp xam ko ñun loolu mooy suñu objectif nous les femmes de la zone nord voilà Babacar